bu gàtt lay doon noo ngi siyaar seex am satu ngir mu joxal na ko seex Muntaxa man nag ci may waxe mooy fi jàmbaar yi bàyyee rek mooy Himar moomu noo koy wax ne ko dégg naa sax ñu naan na ko état dàq ak yooyu loolu ñun suñu yoon nekku ci nañ ko def premier ministre ñoo xam mais na bàyyi sëñ Touba ku dul moom maynu la ngay wax dara ci sëñ Touba ne ci réew mi di am jàmm loolu nag ñun murit yi noo koy di li fekk àdduna ñun murit yi nu laal sëriñ Fàllu waa kër sëñ Moodu Moustapha ñëpp jóg nu laal borom daaru waa kër maam Cheikh Anta ak sëñ Mandumbe jóg yëf yi nasoo gut luy raam ci ñag bi la jëm nan taxaw yoon seigne touba wi te gore bi suñu bët naré xol seigne touba képp ko faj men na moom rek la touba bi mënul ko dara tay lu bari mu gën moye yëg murit wax day la ci nan ba mu baye duma lu tax muy baye duma pourquoi lo est ce que dang koy wax rek tok di ko wax ay télé télé téléphone àdduna wootalaat man mazari dugal nañ retour ndax bi passé dañ ko yobbu ñu ne perte nañ benn fat démb gis ngeen lu jot a xew sëriñ si fii sax ma sax ma leen a sax digal dama leen di ku ci ne am nga ay taalibe yu nekk ci dëkk bi na ñëpp mobilisé wu ni defoon ci màggal bi dem Masalik taxaw ko rek la ñuy mu jeex une bonne fois pour tout sëñ Bamba du morom gaa yi yëpp sëñ Tuubaa yëpp yu ma man yëpp yu ma ñoo dëkk Ndakaaru yëpp yu pourquoi ñu bi nanu taxaw lu yoonu sëñ Tuubaa wii mu jaral ñu bakkan ku ne ñu yàqu boo waxee man damaa bañ ko ma saaga nan mu saaga ngir sëñ bi man nañu jàpp sëñ Tuubaa man ci daal la ana mu ngi ana Mountakha Bachir ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu sëriñ Tuubaa yépp di nuyu ak a ziyaara ki toog toogaayu borom Darou Mouhty muy sunu bunt ci Serigne Touba muy Serigne Bassirou Anta Niang di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu borom Darou Mouhty gépp nuyoo boobu nag dañ koy teg ci loxol Serigne Amsatou Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ziyaare bokk yëpp man samay wax du ci bari li may wax mooy. murid yi ab communauté lañu mbooloo lañu ay millions lañu kenn nit jóg dévier leen tooñ leen loolu yi nag man moom laa bëgg mu saafarawu yàgg naa koo xeex su fekkee ni Omar Diagne dafa ëpp doole yoonu murid danañu ko xam man daal lenn rek laa bëgg mooy la justice muy yoon li nga xamante ni moom lay teg ku tooñ mu teg ko Omar Diagne ndax ba ma juddoo ba tey mag ñi ma mag maa ngi doog a génn dégg ku taxaw ni sëriñ Touba nekkul ci sama xol Serigne Touba bu nekkul ci sa xol war nga ko mën a nëbb mag ñi ma mag noo ngi doog a dégg ba yoonu murid sosoo ba léegi ku taxaw wax ni sëriñ Touba li mu bind c'est pas parfait matut dañ ko war a defaraat loolu maa ngi koy doog a dégg ma bëgg nag ñun murid yi ñu taxaw ndax li ci waa bi yow di wax ni l'impossible n'est pas murid murid yi tëlewuñu dara la preuve en est gis ngeen li ma jàkkaarloo ci ay caméra sëriñ am sëtu ñeent fukki at ci gannaaw xatal nañu yoonu murid ci média yi ba sa waajuro ci Abdoul Ahad Mbacké yal na ko sunu borom fayal wax wax ñoom waxoon waaye tey gis ngeen les caméras te lépp ay murit a ko moom may sàkku nag ñu takku mbooloo moo xamante ni bii dana nu aar yoon wi dana nu aar dëkk bi dana nu aar njabootu Sëriñ Tuubaa ji ndax li ñu wax ci média yi murit yi tëlewuñu dara dinaa ci joxe benn misaal muy jumaay Tuubaa jumaay Touba bi ñu koy tabax Touba amul forage amul ndox fan la ñu doon jëlee ndox mi ñu ko doon tabaxee Cheikh Mahamadul Moustapha yàlla na ko sunu borom fayal moo wutoon ay mbandi sunoŋ yu mag bu nawet jotee fu ab déeg taa ci Sénégal mu di dem wut ay ndab dem root ko ñëw sotti ko ci mband yi bu nooree moom la ñu daan tabaxee am na benn journaliste Magalu Touba 1956 reportage bi mu doon def en français. bi bi mu jeexalee ma ngay wax ni du ma génn Touba mukk te rendre ma hommage delloo ma njukkal les soixante mille murit booba nee nañu 1956 murit yi soixante mille la ñu woon mu ni ñoom de danaa leen rendre hommage ndax seen tabax yi ñuy tabax pyramide ya nekk Égypte lañ ko mën a méngaleel ak cathédrale yi nekk Occident mu ni moo a murit yi day domteeguñu la nature amuñu ay groupe amuñu ay lenge amuñu ay bur ak ay ay ay ay liy jaxase ciment lu ko waxee yi euh, li ñu def lépp seen loxo lañ ko defee te loolu c'était en 1956 sept ans après le Sëñ Fallu doogale eggale jumaa ji kon li may sàkk mooy Omar Diagne ñii daal na yoon jóg def li war su fekkente ni defuloo ëpp doole nag ñu xam te loolu sax mënut a nekk yoonu mu dara ëpp ko doole di sant njabootu Sëriñ Tuubaa gi nga xamante ni teew nañu ngir lii nga xamante ni yëkkati nañ ko jëme ko ci seen maam am na murid yooyu nag sëñ Touba deesu ko xulool man damay xulool Serigne Touba damay xeexal Serigne Touba bu jaree joxe bakkan damay joxe sama bakkan ngir Serigne Touba bu ma dee naa dem sawar maa xam kon Serigne Touba kenn du ko xeexal giñ naa ci tarayee borom Daaru Muxti Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ñu nekk ci suuf ku taxawoon ni bindum Serigne Touba mi baaxut dañ koy defar la mu waxoon ni murid buy dox kenn ku nekk sañ naa doon sab sëriñ waaye murid bu tëdd si ak yaat kooka ni diway sab sëriñ bu ma noonu jóg du fab aw yat joosi lay fab waaye wallahi alazim sëñ Abdoulaye tey bu fi woon waa ji ba bañ a tudd aw turam taxaw ni mbindum sëñ Tuubaa dox fu mu nekk daan ko fekk maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Mbaye Guèye Syll ñi koy joxe sax xamuñu ne ñoom yëguñu ne ñi ngi koy joxe kon bu mu jàpp ne lu jugul la ba tax sëñ Tuubaa la yàlla tàggatal xol yi bu laajee danañ joxe bu santaane des na jëf bu dee ci bindum sëñ bi rek da koo jéggi Cheikh Ibrahima Diop al-Machar dafa waxoon ne ci sëñ Tuubaa fa fi kulli baytin min nizaamika ibra biha yahuru al-aarif al-mutabasit defe naa kii wax lii ci mbindam nag ida katabtu anta zaartullah jalla wa xaaba kulla jaanillah ida katabtu farra iblisu bila tawajjuhun liye wa am ni ko bila إذا كتبت أو قرأت هذا لي البديع فضله من قال إذا كتبت ابتسم السجاع وانتجه لحزن الأوجاع وجدت وي يرنت بيكو موموي مو بيندي يرنت بيدي بيك واي كيب كو انيان نك او ميتي تالاي دار موي اونك بي عمر جان ديكي الله جان مي هاي ما اذا كتبت او قرات فرا ابليس ما كل شقي غرا كو خامني بو ابليس دا نان داو اك كورلم ida katabtu aw qaratu hal wala ila siwaay kulli man taqawwala kon koo xam ne mbindam kitaabati min bi rabbi tanqul laa yamtari fiiha nabilum yanqil mu mel ni nag dafa am benn benn wata koo xam ne da daan wuti ñam bi waaye daa amul golo yeewu ko ci wata bi golo gi bu nit ñi dee tàccu naan golo golo golo yi sëq ñëmb ji di may nit ñi saa yu borom waxta bi gaaree nag bu xoolee xam ne ñëmb ji manqué na mu perte mujj na mu ne naa ci defuk settantal mu fexe ba xool golo gi ci seetu bi seen ni nit ñi koy baraawoo di ko tàccu moo tax gaynde di di di eh, golo gi di publier ñambi ji di ko maye mu jàpp ko duma ko duma yu mettee metti yeewaat ko ca gannaaw mu romb dëkk bi nag ña doon tàccu di tàccuwaat di séentu golo sànni leen ñambi mu naan leen nii noppi leen ndax mi may seen kii kon golo gii rëcc ci kër gii di sànni ñambi yii tee ngeen a yeew seen golo bi ndax bu yàqee ñambi yii yéen la yàqal seen ñambi te du tee ñeneen bay ñambi ñuy dunde ñambi kon na ngeen ci góor góorgóorlu bu baax sëñ Tuubaa nag sëñ Ibrahima Diop ne na tabban li munkarihi tabban li xaasidihi tabban li man anada kenn du ko noonu am jàmm bu sa jëmm tax waaye ku amul lu mooy lenn ku ko laal gis leen waaye yow yàgg ngaa wax te kenn tontu la ba ngay wëri plateau di wut ku la xam ku ne nga jiñ ko franc-maçon ak ub sàcc ak góor jigéen say wax mënu koo weesu jiw moom la képp ngay wax waaye amoo tegtal boo ca teg boobu jàpp ñu ne yow ku nu war a wuyu nga ndax ku bëgg li jëtu képp da nga am nga place nag jàpp ne jekk nga boo tooñee ci lañ lay war a door a tontu yow Ximaar Jaañ nga xam loolu xam ne ñun duñ dëpp duñ bàyyi duñ tayyi duñ dellu ginnaaw sëriñ bi lañ am ñoñam lañ am danañ jébbul danañ joxe danañ gëm te duñ dëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي جولي بوكي طالبي غنا بو نو بروم بي تيات كي يالي كي موم جولي صلى الله عليه وسلم noo ngi dellu di yeesal sunu jaayeen ci Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wa arda noo ngi nuyu mboolem ñi teew ñëpp njabootu Serigne Touba gi ak taalibe yi ak donga yi maa ngi fab nuyu boobu nag di ko teg ci loxol Serigne Hamsatou Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad mu tasaare ko ci mboolem njabootu Serigne Touba di teew yëpp wax ji jarul muy li mu andi fii mooy Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne dafa dëkk di tooñ sëñ Tubaa di tooñ njabootu sëñ Tubaa te kenn téewul loxoom xamal ko ne ko ki koy tooñ mbooloo mu ko yaakaar di gëm ko ñoo topp ci ginnaaw dafa jot nag jëm su fekkente ne nee nga du sa référence booy lim gaa yu baax ya doo ko ci boole boy lim gaa yu baax yi do ko ci bolé man du sama référence àgg ci nañ andi am bindum mi nga xamné néna ci na ca lawhul mahfuus la koy tukalé tek ko ci taabal ji ñu jambar té mom mi bëgg jambar waxi Serigne Touba manam déggul arab mokulul alquran maîtriser wul dara ci diine waxal yépp ay njuumte dëgg ci gis kon loolu li muy bijji rek moy ak tooñ bu magga magga magga mag lay tooñ kon nak yeen wa réew nu ngi leen di interpellé ngeen téye ci loxob jëmm jooju ñuy wax Cheikh Omar Diagne xamal ko ne ko Serigne Touba du fawukaay du ko ñuy tooñ ndax pas-pasub jàmbur caaxaan da ca jëmu nun mu di nag li war a xam mooy Serigne Touba garab la garab nag ay bànqaas dañ caa ne ay car ne ca ay xob ne ca bànqaas yi ñooy doom yi car yi ñooy seex yi xol yi mooy taalibe yi waaye nag bànqaas ba féete saw ak ba féete pen saa garab gi meññee doom boo ci dagg rek la bànqaas ba féete saw di saf ba féete penk it loolu lay saf ndax dañoo jàpp ci taatu garab gi te taatu garab gi mooy Sëriñ Tuubaa waaye jamono jii nag ni ma ko gisee mooy képp ku toog ci sa branche ne man sama branche rek mooy branche faaliwu taatu garab bi bëgg gis saay-saay bu mel na Cheikh Omar Diagne yor aw semmi jëm si ci taatu garab gi bëgg koo dagg dana feeg laalul sama branche aw ma ci moom soxla bu taatu garab gi daandoo bu taatu garab bi daandoo nga ànd ak sa branche daanu te taatu garab gi mooy Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Omar Diagne déclaré nga nu guerre danañ ko toppanteeg yow ba mu des walaat wala dees na la riig ci sa ànd wala ñi la war a wax la dëgg ne la Sëriñ Tuubaa du ko ñuy laal du ko ñuy tooñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah bu ñu ne murid yi voilà Omar Diagne Omar Diagne fekk il ne dara donc il faut loolu ñëpp xam ko nag du dara murid yi xajuñu ci af xajuñu ci sere xajuñu ci waxuma ak Omar Diagne loolu na ku ñëpp nangu beneen bi may waxaat bala maa mooy ñu bari ñu ngi koy toll ci xam-xam murid moo toll noonu ndax am nay argument mais Omar Diagne di ko ñuy toll ci xam-xam parce que yéen ñii jàkkaarloog man le journalistes ak ñi ñuy seetaan Sénégal dafa bindoo noo xam ni ñu bari seen àll wu ci diine maanaam li ñu jàng ci islam xam-xamu islam bari wuñ ko c'est tout il suffit tout simplement nga dem Google ubbi Google déglu xardaawi wata wala mu tawal charaawi mu wax la ay aaya ak xadis nga mémorise ko ñëw toog jàkkaaroog Sénégalais yi soo waxee ñu ngi waa ji mooy ponkal di ngeen aay bi mu wax. Omar Diagne ñu seer yeddu bu ma ko waxe rek dinaa ko prouvé kenn ko tontu ci xam-xam bu fekkoon ponkal mu jóge ci réewi arabe ñu ñep di ko xool ngir xam-xam ñoo ñu waxe Serigne Touba ji nangam bu boba kenn du mer dañ koy dij fi ci Touba ba tok yaq yàq tuba yam xam ni li wax dëgg ci xam-xam mais Omar Diagne wértiwul ñu waxante ak mom ci xam-xam ku soyo clair du ko ñu xat xam-xam bu ñu waxante dëgg likoy koy nak moy daara Serigne As jaxati ji daarul maarif wala institut El Azhar soo fi duggee di nga fi génne xale bu am 18 ans soo ko noonu soo demee ba Alabama su waxtu wi julli jotee astronomie bi waaw waxtu bi xamul nga koy xame xale bi dina leen imaam Malik boo demee Xalil atte nañ ko bu yàgg atte baa ngi nii Omar Diagne nag moom xamul ni li mu ne fuqahaa yi borom xam-xam yi war nañoo jéem wut solution waxtu wi julleeg nangam xamuñu ne islam rek la war na ko bu yàgg moo leen war ni jàngul dara bu jàngoon du dugg bu jàngoon wax ma yéen ñi laay waxal yéen ñi xamul lislaam ñu ci sëlmul Omar Diagne bu xamoon dara du wax ni questionnement yi borom xam-xam yi lislaam yi war woon nañ ko te loolu la ndax jamono yonente ba ba léegi noo ngi attewu ci atte yoo xam ni lii xew jamono jilee xew nu ngi atte woo ca jamono yonente bi ñoom prévoir nañ ñëpp moom nag xamul dara jàng ko moo tax mu naan borom xam-xam yi dem leen gëstu ji ndax xool suñu kanam war nañ ko wutal ay solution l'islam wutaloon na ko solution bu yàgg mais comme jàngul nag mënu koo xam foofu laa ci yem benn bi toog mooy lii nga xam ne moom lañ tënk mémorandum la bind nañ ko ci france muy tribune des vingt-huit de Touba déclaration tribune des vingt-huit de Touba vingt-huit yi nag dinaa ko lim léegi mais ñaari liste la ndax dañoo fas yéene li ngeen di junj bu ñu fi jógee daaw Omar Diagne rek taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy tey jii ci sept septembre deux mille vingt quatre diggante Kaolack Sibassor Ziguinchor Kédougou Ndar Thiès ay cellules yoo xam ne képp ku fa laal ci sëriñ bi wala nga wax loo wërti wax bu boobaa danañ ko séq ak yow foofu la wax di jëm Omar Diagne taxu ñoo ñun ñëpp xam ne loolu ma maqaama moom tekkiwu ko itam ndax lii nga xam noonu lañ bind bokk na ci ni dans l'histoire du Sénégal ba ñu amee indépendance ba léegi benn nit koo xam ne homme public nga wala privé nga ku waxe nii ci yoonu murid ku bañ nii yoonu murid histoire gisagu ko ni Omar Diagne mel man tur bi sax maa ngi leen jégal ngóor si Diagne laa ko yooye parce que Omar Seydina Omar dafa mag ngóor si kenn ku ma sa songe nii waxi wax ju ñaaw nii musta am loolu nag ndakaaru goo mu nekk rek lekkoon lu yomb la xam ngeen ni fukki kaa jaar na fi fukki kaa jaar na fi xam ngeen li ma wax Mamour Mbaye mi leen wax bi fekk na ko buntu Walfadjri sëñ Xaadim Bousso ñii moo ko sowe ñu ngi nii toog moo ko sowe wan kon mbir mi rek la woon nag yàgg fekk na ñu daw nëbbu ko muy daw dimbali leen ma làq leen ma kon ba xaar bu mel noonu duñ tax a wax te lii daaw jiw del la fekk ñu mooy bi mu waxee ni sëriñ bi day woor ak a wori ci télégramme bu tubaab bi ak Alaaji Maalik donc moom diine jëpp la laal léegi nag yemul foofu dem na ba egg ci loo xam ni ñi nga xam ne dañ leen di tudd état de droit ak ci intellectuel ak lu bees loo xam ne bëgg nañoo am rupture ci réew mu dem ba wax loo xam ni ku ko wax waroo faral seen néeg mooy da ngaa accuser ay nit ci blanchiment d'argent loolu dama ne bu fekkee ni réew mi bi ñuy wax bu bees bi am na existé na Omar Diagne wërtu fanaan ci bu nekk mu wax ni ci la nekk muy GIABA banque yi ñu ko jël pourcentage Omar Diagne yaa ngi koy tooñ moom bu fekkee nit da tooñ kenn la tooñ moom nag Sénégal gépp la tooñ moom tooñu benn nit tarixa yëpp la tooñ loolu it ñi nga xam ne dañoo naafiq ñu hypocrite wala soi-disant des intellectuels ñu papillon cravate naan ay r di def ay commentaires loolu sa sa ça ne passera pas parce que li ñuy wax mooy non kii dafa am xam-xam nangam nangam yéen ñi jàng français jàng droit noonu leen di laaj ndax li ñu Omar daan def tey benn nit sañ na ko def feneen jóg jàpp nit waxuma sax Sëñ Tuubaa waxuma yoon la mais Sénégal droit la ay loi la man ñii wala ku mën a doon boo yëkkatee kàddu wax ko beneen nit sayagoo ab jaam sax yoon dalaa waral a lijjanteeg yow yoon nañ ko jóg songu Sénégal gépp tàmbale ko ci ñun diine wax ju ñaaw ju la ko kon nañ jëm ci personnalité Omar Diagne man waxoon naa fii duma fi dellu boobu xaw ma ko tàmbaleegul wax añ na fii ci man ci Touba añ na moo ko dàq Sénégal añ na fii moo wax leen Babacar Mbuub mën na maa seere te li may wax wax ma ko pour moo dàq añ ci Sénégal fekk na mu fii ndi añ ci man ànd ak Babacar Mbuub ak Adama Mbuub moom tremplin fii mu jaar ba ñu xam ko mooy ànd sàmm jikko yi foo ñu ko daan invité man jana benn problème personnel ak moom mais damaa bëgg xam Sénégal yi tey ñu xam lu leer nañ ci numéro yi lii Mamour Baye wax jot mu sikk ñu xam ne Sëriñ Tuubaa moo ñu gënal suñu ndey baay am na na benn problème bu am su la Sëriñ Tuubaa nee dinaa dugal man ma gëm ko ñii fi toog gëm ko yow nga ne intellectuel nga gëmoo ko waaye jàppal sa njaboot bu ñu demee sawar bu ëllëgee sa yoon nekku ci dégg ngeen li sëñ bi wax ñuulu mun te sëñ Tuubaa nee na képp am nga xam-xam te ragaloo yàlla waxuñu dëgg amoo xam-xam man yax sa képp ku ragalul yàlla rek البيض تملي دمارك إن الذي لم يخشى رب العالمين فليس لها عالمين بل والبلد أفعله إن الذي لم يخشى رب العالمين ليس بعالم ولا أفنى العلو كيف وقت الذي أمد خمكم ترغلوا يلا نحن أدن بيت وقت نال أمو خمر بقى يلا نجنا للوقت لير وقت ورجع نمير دولي تسام دفنا برن بروليم بخمي يا كرنا كيف يريني من دولي يريني صح xam naa duñ nelaw ndax ku xam relation yi am diggante Maroc Sénégal lii relation exceptionnelle Omar Diagne mën a taxaw ñu ngi daw ci vidéo yooyu yëpp ñu Mohamed cinq ñu faat noonu ñu di jul wax ni jul bu faatoon bu gën a bon ci adduna it ñaanal ko bu wax ci moom lu ñaaw Omar Diagne ñu leen di wax naan jullit la am na xam-xam moo yekk lii Mohamed cinq foofu rek doy nañu yem ab jullit bu faatu nga war koo ñaanal njëggal yàlla loolu boo ko xamoon te li ñuy wax dëgg nga tuumal ko ni franc-maçon yemul ci doomam nekk bi jiitam réewam di souverain di roi fam nekk ngari franc-maçon la yemul ca ngari borom ñaari tur la kooku mel noonu nan lay mën a nekk ci benn espace le moindre espace dans l'état du Sénégal ci benn bureau nan la fay mën a nekkee on pose la question mais nag ci biir li ñu bind am na lu wax ñeneen dañoo li ñu gëm bëgg rek ñu sot ñun li ñu gëm ba keroog muy sot dañoo gën ñu ñoom ba ñu koy jël di ko fal xamuñu lii loolu waaw waaw dañ leen di dañuy dañ leen di metti foofu li fekk muy gëm dañoo jàpp ni ñoom loolu la ñu jàpp noonu ba gis leneen waaye nag day am responsabilité boo xam day engagé wu nit mën naa def loo xam ne nga dénk ko ko mu def ci lu mu def nga woo ko faj ma jox ñaari exemple film Carmen Carmen xëy na gone yi xamu leen ko film Carmen dañ ko defoon doon profané Sëriñ Tuubaa ak xasida yi Touba laa dem Dakar woote. Fatma ma maa ngi leen nuyu di nuyu sa bokk yu baax yi nga àndal te taxawal lii muy lu am solo lu am njëriñ loo xam ne ñëpp a ko war a bàyyi xel te ànd ceeg yow xaj na jëmpaay bi moo tax waaye doon na jaat nag samay mag bari fi lool samay rakk bari fi lool. daa leen dogal ngànt nag tey ndax jëmpaay bi. lii ñun ñëpp la dal ñun ñëpp la naqare ñun ñëpp la metti ndokk nag biñ jabootee suñu doom ñu am fulla am fayda taxaw ci lii ngir mu kon du ma guddal Omar Diagne benn yoon Omar Diagne ñaar yoon Omar Diagne ñett yoon Omar Diagne ñeent yoon bàyyil Sëriñ Tuubaa bàyyil tarixa muridiyya bàyyil dëpp Sëriñ Tuubaa bàyyi jumaay sëñ Tuubaa sa yoon nekku ci màndu moo la war gëmoo sëñ Tuubaa waroo wax ci moom dara doomu murit waroo wax ci yoon murit dara Tuubaa xamoo fi dara la te yaa ngi ñuy tuumal ak càcc di ñuy tuumal ak sopp xaalis dara amu lañ tamit loolu buñ la ci toppee ca kaso bi ngay dee man yàgg naa la porte plainte dëgg la ci ngóor gi fi nekkoon waaye jur ñu woon dara sëñ Fallou mi xam na ci dara ñoom maam Cheikh Aïs xam na ci dara yoon nag dana wute yaakaar naa ndax li wax dafa jéggi dayoo te dafa tooñ askan wi yëpp dëggal tam murid yaa ngi wax naan sëñ Tuubaa di ko xeex loolu si ñëpp daal dafa waxoon waaye daa am lu ko taxoon a wax sa bonu sol bi dañ koy fàtte di ko andi mook la mu waxoon ni ñett ñu bokk ndey ak bàyyi ngay tam ci kii xeer lépp daa am lu ko waraloon Senghor bi muy tàggatoo moo waxoon si daal ne ko damaa yaakaar ne su ma fi jógee guerre civile day am ci réew mi mu ne ko lan mooy guerre civile mu ne ko tarixa yooyu xeex mu ne kon ab saay saay la boo demee gannaaw wax na ko def na ko ba noppi ba màggal gi jàllee muy tàggoo yàlla demoon ca kër diine yëpp mm-hmm. ab taalibe nag fu mu fekk ñuy wax sëñ Tuubaa lu jaaduwul wala ñu koy takki darab lay fu lam mooy nekk ca di ko saabu lu ko fekk fekk ko waaye di dem ci kilifaam di ko tàggu ndax ak njaxum kenn du ko tàggoo da ngay jekki-jekki di ca xës ñu fekk la ca buñ la tëjee wala ñu na sëñ ba topp di mm-hmm. waaye sëñ moom du wax njaxum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 man ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi fi nekk itam ñu di ñaan ñu saafara lii ndax kat Tuubaa am amuñu ko fenn ci yaakaar tax ñu wàccee leen te dañoo ay naqar yoo xam ne yitte la bokk ku ko saafara dañuy sant yàlla man jot naa ko ba di dem téléphone wax ci lii ci Tuubaa li ñu am ni mu ko jaaxal man ko liggéey suñu borom mooy ne dana ko bàyyi xel dana jël ay gëstu yu am solo comme nag tubaab dañ leen a wateel cent pour cent wala quatre-vingt-dix pour cent te lii naqar nañu te mën nañ koo saafara suñu bopp waaye yéen ko leen ci seen seen roq kon la ngeen ci war def def leen ko ci nañ ragal fitna wa taqoo fitna laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaasatan Omar Diagne ñooñu yàlla da ko rëbb ndax dañuy fitna fu mu toll te al fitnatu naa iman laxana allah man ars kon wax ji du damay sant sama kilifa yi rek sëñ Aliou ak sëñ Sarif ak bokk yi fa daje yëpp sant njaboot sëñ Tuubaa sant taalibi sëñ Tuubaa ñun nañ maase takku ni aw xam ni jan dool rek a fi nekk sëñ Tuubaa ñu ko sëñ Tuubaa rek am dëkkër yaa ngi bëgg a yàq yoon nag ku ne dufal bàyyi ma jàpp ni moo def dara kenn la fi bàyyi ma def dara sëñ Tuubaa def lépp dëggal na may na ñu bari lool li may bari na ndax ñi ko toppoon dañoo xamoon dara jàmm te am am am cër seen borom waaye ñu futtiku jaay cër boobee yéene ko taalibe bi liggéey sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa defal ñu def kon nag ku bëgg a yokk la la fanoon bu ko fàtte sëñ Tuubaa ñu fan bu ñu ko fàtte ko salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu wa sahbihi wa xadimihi wa man wala ñu ngi siyaare kilifa yëpp rawatina njabootu Cheikh Ahmadou Fadal gi fi teew di ñaan suñu borom def barke ci bis ci seen teewaay boobu euh, waa ji jaañ nag du ma ko tuddee mbaam sax ndaxte mbaam amal na njariñ Touba ku ne ko xam Touba xam ko xam calendrier maçonnique xam ni moom ab franc la ko xam te nii nëbbut ak franc daanaka ndax ñoom luñ bëgg a dëgëral rek dañuy mel ni koy weddi noonu la ñuy doxi yim laal nag ci yoonu murit ak ci sëriñ bi bu fekkoon yoonu murit day jëmm day mel ni xol bala laal ndax mbindum sëriñ Tuubaa la laal ak jumaan ji te ñaar yooyu daa àggoon sëriñ bi bu sore moo tax keroog ba maam Cheikh Anta fekkee sëriñ bi sëriñ bi fekk ko ci melaw doy waar melaw woo xam te nii mënees koo nekk ci am murit commencé jël yeere sëriñ bi di fóot dajale ay dàllam ak i gaalam sëriñ bi da di ko Cheikh teg maa dajale sama xalima yi may dagg sama sang bu kon mbindum sëriñ bi la attaqué loolu nag li ko waral mooy li ma wax léegi ci calendrier maçonnique bi ku ne xam na ne sëriñ Touba mi ngi doog a am téeméeri at ci kaw suuf ci biir suuf ci zahir te ku ne xam na ni ñoom dañuy wax ñoom franc-maçon yi dañuy wax toujours ni gépp kuréel koo gis bu xasee am téeméeri at lu mu màgg màgg day daan waat waaye dañoo gis ne yoonu murit dafa am téeméeri di gën a kawe di gën a yëkkatiku moo tax ñu taxaw temm ngir attaqué wala yàq yàq li nga xam ni mooy njàngaleem Sëriñ Tuubaa moo tax mu laal li gën a ci yoonu murid muy mbindum bi sëriñ bi mbindam bi nga xam te ni wax na ni moo raw suyoox yi def tarbiya ak yi def tarqiya am mbindam ñoo gën a gaaw gën a gaaw ci yéegal nit ko yàlla mbind moomu la ko wax ni mbind mi am nag manqué war nañ ko mën a corriger war nañ ko mën a xoolaat daa man ma waxoon sëriñ bi ni ko yaluuqu lahu lmaana ka riqati lafzihi mee na sëñ bi ay waxam maanaa meeg baat yi amul lenn lu ci nit mën a contesté ndax neexaay bu neex ak am solo bu am solo lii nag yàgg na koo def moom moom Omar Diagne yàgg na koo def lool waaye nag li kulli shay'in sabab wala kulli shay'in ajal mbir moo gis am na fu muy yem ndax murid daa koy ay waxam jamono bu nekk muy wax lu koy métti seen nekk waaye buñ jógee nii sëriñ bi ci boppam moo ci dugal loxoom ndax murid bu nekk fu mu mën a nekk ci kaw suuf ni koy métti kon nag nii mu méttee murid yi naqari leen naqari leen noonu la naqaree suñu borom subhanahu wa taala noonu la naqaree yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii nag bu mu saam ci kaw suuf liñ daa def mooy ihdaaru dam lañ daa def maanaam dañuy di wax ni diw mi wax lii kat deretam dagan na kon Omar Diagne bis naka bis ba mu të tëbee di wax ci suñ Tuubaa booba deretam daganoon كيف كوري امو امو امو فتنه امو افحاد في الدين لا تخ موي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلطوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض امام بخاري بن فلاي بن دامل سي بروم دامر بي وخ في عمر جاي عمر جاي نتي نوي لاكو ان يقتلوا مام ني راي لين راي بو خاندي راي او يسلطوا ما يوكلين aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min xilaaf wala ñu dagg loxo càmmoñ ak tànk ni joor aw yoon foofu la daal wala mu génne leen moom nag loolu dal na ko ndax yaakaar naa fi nii moom mu génn dem ci ab jotaay jafe ci moom lool ndax murid yëpp a ngi ko jàppal mer te ku jàkkaarloo moom la nga fa yéene mooy jëflante ak moom kon nag ñuy wax ni ab ragal la ndax ab ragal mooy def li muy ndax li si Moussa wax léegi nii keroog bañ ko tiimee wal fajiri muy lox ginnaaw yàlla ba mi ma tax muy dundaat ba léegi te ba mu génnee la commencé di wax ay wax ak di kiyaat kon lii muy wax nii lépp ab calendrier la wax moom mi koy wax sax comprendre li muy wax ndax ñi koy wax loo muy lobby maçonnique yi nga xam te ne am na ñoo xam ne nit ñi sa biir Sénégal ñoo leen koy wax loo loolu maanaam seen calendrier mooy tadmir yoonu murid tasaare yoonu murid ndax gis ba mu des Sénégal moom nag mu jël ko di ko attaqué ak jumaay suñu Tuubaa ji nga xam ne suñu Tuubaa daa waxoon ni bala maa bàkku sama jumaa ji àgg bañ ma koy jullit ci laay bàkkoo man Abdul Xaadir kon nag defi na àddina defi na monde bi defi na yoonu murit ñuy wax ni kon ñu ngi interpellé état Sénégal lu gën a gaaw mu jël ay mesures ci waa ji ndax bu bàyyee bañ rey ko mbaa ñu laggal ko su boobaa mooy rek responsabilité bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wasalaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi tàmbalee suñu nuyoo ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom yokk koo tawfeexal yokk koo dëgëral ci liggéey Sëriñ Touba bi di teg nuyoo bi ci loxo yi suñu wayjur yi fi nekk suñuy kilifa seen jataay bi rëy nit ñun lool ndax kóolutee ak doyloo ak yittewoo sëriñ bi moo leen yëkkati moo leen tax a def déplacement bi lii ñu woote nag dama bëgg a leeral lu tax ñu woote ko xam ngeen ne réewum Sénégal ci tubaab dañ naan exception sénégalaise maanaam soo xoolee ci Afrique réew la moo xam ne wuute na lool ak réew yu baree baree bari ci Afrique ndax réew yu baree bari ci Afrique dañuy xeexoo dañuy xiiroo dañuy ŋaayoo ay dafay tàkk te li ko waral lu ci bari mbiri waaso la mbiri pas-pas ak mbiri xeet moo koy waral Sénégal nag ñuy xel ñëpp dañoo jàpp ni senegal mucc na ci loolu te ku jàngat da gis ne li ko waral mooy ñoo ngi jógee ci màggal jëm ci gàmmu xam ngeen ne kilifay diine yépp ci réew mi su xew-xew yooyu amee kër boo ci dem xeeti senegal yépp dañ leen fa fekk muy wolof muy séeréer muy joolaa muy xeet lu mu mën a doon ñu am lu leen boole mu di pas-pas bëgg sëriñ Touba wala bëgg seenub sëriñ tax ñuy fàtte loolu leen wutale muy ay xeet ak i waasoog yu demee noonu jàmm jooju Sénégal amee ci loolu nag kilifa diine tabax ko ba Sénégal agsi fii mu agsi nekk exception ci wàllu jàmm ci wàllu démocratie ak ci wàllu jàmmoo ak ci wàllu xajoo nit ñi amee wuute ci diine waaye teewul kenn ku ne xajoo sa moroom loolu magi diine yi ñoo ko fi liggéeyoon kilifa diine yi ñoo ko fi liggéey kër yi diine yi ñoo ko fi liggéey tarixa yi ñoo ko fi liggéey du état du colonisation bi ñu du état ab poste indépendance du kenn ku tabax loolu Sénégal am ku dul kilifa diine yi ku dul këri diine loolu Sénégal am nag la jën jëmm mi Omar Diagne jóg ne dafee war a jeex taxaw na ne balaa yàgg tarixa dootu am Sénégal kon mi ngi ci xeex tarixa ba tarixa jóge Sénégal ndax ku mel noonu bëgg na Sénégal koo xam ne li Sénégal am ci jàmm ak tawféex li ko ko may nee na loolu na fi jóge wax na itam ci waxam ne xolam sëñ Baye Gueye si ñu koy fàttali léegi xolam seexul Khadim nekku ci du ko def ci xolam bari na ñoo xam ne Seexul Xadiim nekkul ci seen xol xam nañ ko am na ñoo xam ne ci bind ci article waaye ci fës ci vidéo fang di wax ne Serigne Touba nekkul ci sama xol moom bu ñu koy soog a gis ci ab sénégalais lii nag jataay bii woote li ko waral mooy naam lu baree baree bari ñu def ay vidéo di def ay réaction di wax loolu lu baax la ndax kenn ku ne am nga noo mën a songe ci xeex bi kii ñuy xeexal moom nag du jëmmam moo ñu tax a jóg waaye li muy représenté xalaat bi muy représenté pas-pas bi muy représenté ak gisin bi muy représenté am na ñu naan jërutoon ñuy def lu mel nii ndax wax ji yi muy wax lu yàgg la am na ñu naan biñ ko falee rek ci lañ waroon a jóg waaye dañoo war a xam ne li waral lii ñu def ko da bokk waxam yi mi ngi soog di tasaaroo nii mu tasaaroo ci fan yi màggal bari na ci jataay bii ak ci sénégalais yi ñoo xam ne xëy na am na lenn luñ daan dégg ci ay waxam waaye néew na nga gis koo xam ne lim daan wax lépp dégg déglu nga ko wala déggoon nga ko wala xamoon nga ko dafa mel ne jamono yi màggal bii ci la ko suñ borom weer ba mu ne fàng bu ñëpp xam taxawaayam ak lim daan wax ak lépp li mu daan wax nit ñëpp ñu solli ko ba ñëpp teg ci seen bët loolu nag su amee te itam ba muy daan wax wax ji suñ nee dañoo waroon a jóg te booba booba benn waay rek la woon waaye léegi dafa am ay responsabilité ci état du Sénégal responsabilité yi mu am ci état du Sénégal da koo jox beneen dayo mu mel ne kon waxam yii feeñ ñu di ko dégg di feeñal mbañeel di feeñal ak coxor di feeñal bañ def ci xolam Cheikhul Khadim waxam yii feeñ bii mu feeñ ba tasaaroo bu ñëpp jot ci weeru dafa mel ne mënutoon a ñàkk ñu def jataay yu mel ni dénoncé kii mu doon ak li muy ndax su weesoo loolu itam xam ngeen ne wax ju yàgg su dee wax ju baaxul la jëf ju yàgg su dee jëf ju baaxul la lu mu yàgg-yàgg su ci ab su ci suñ ubbee sa xol ak sa xel war nga cee taxaw taxawaay ba nga ci war a am kon du lay ci ne lim daan wax wax ju yàgg la te sax nag ay bis ci ginnaaw rek yokk na ci xar mi kawar ndax def na conférence boo xam ne ngàññi ci mbind mag ñi ngàññi ci sëriñ Tuubaa ci mbindam doyadal ko tuutal ko kon kooka la mu daan wax ñu ne wax bu yàgg la ca la nekk ba léegi te loolu firnde la ci kon loolu jar naa tax ñu def jataay yu mel nii jataay bi nag xam ngeen li tax ñu koy defit mooy li muy représenté doon wax li mu daan wax ñu teg ko fii ñu ko teg day mel ne dafa am promotion ci li mu daan wax ak di ko jëf muy xeex tarixa ya xeex kilifa diine yi te loolu bunt la boo xam ne su ubbeekoo ñeneen ñu ay temam ñu mel ne moom yu baree baree bari jaar ci bunt boobu ci doyadal sëriñ si doyadal seenu liggéey xeex tarixa yi xeex kilifa diine yi bunt la boo xam ne suñu ko tëjul ñu baree baree baree bari ñu ngi ci ginnaaw làqatu di xaar lool lii mu def jikko ba ñoom it ñu jaar ci bunt boobu kon nag bunt bu mat a gaaw a tëj la lii ñuy def nag du parparloo ci politique du parparloo ci bëgg lu neex ma sàmba wala lu naqari ma demba li ñuy def daal mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa sàkku lu ko neex sàkku mbégam ci xeexal ko taxaw ci li mu fi bàyyi ci noonu suñu kem kàttan ñu di ko sàmm ndax ñi àndoon ak sëriñ bi di mag ñi kenn yabuñ kenn yabu leen woon ab murid daana nekk ci dëkk historien yi duñ ma bàyyi ma wax lu dul noonu ab murid daana nekk moom tundum ci dëkk ñu di ko wax lu ne ñu di ko dékku di xeex di xeex di xeex ba imposé fa yoonu sëriñ Tuubaa yoon wi looloo ko tasaare ci àdduna bi yëpp looloo ko tasaare ci réew mi kon nag fulla jooju mag ñi amoon doon lim bu néew ñu dema dem bay wax ay millions fulla jooju waruñu koo ëppale waruñu ëpp pas-pas waruñu ëpp bëgg-bëgg ci liggéey sëriñ Tuubaa taxawal ko ak ak xeexal te liggéey sëriñ Tuubaa taxawal ko xeexal ko mooy xeexal suñu borom mooy xeexal sang bu tey bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy xeexal réewum Sénégal yitam ndax mooy xeexal réewum Sénégal yitam ndax njariñul Sénégal mi ngi ci cohésion bi nit ñi am ñu mën koo sàmm jàmm ji nit ñi am ñu mën koo sàmm xajoo bi nit ñi am malgré seeni différence ñu mën koo sàmm te loolu mooy tax ñu mën a dëgmal développement endogène sukkandiku suñ suñu bopp ni ñu ko Sëriñ jàngale woon ba mën a jëm ci kanam kon dañuy foog xëy na rafet njort dogal ngànt ñi ko tabb ci ne xëy na bañ koy tabb xamuñ woon la mu daan wax xamuñ woon pas-pasam xamuñ woon la mu daan yëpp loolu mën nañ cee dog nga dogal ngànt waaye nag léegi xam nañ xam nañ li mu daan wax xam nañ ay position xam nañ xalaatam xam nañ li mu yëngal mooy xolu jullit ñu xolu taalibe yi kon léegi umpaleetuñ ci dara nañu jël seeni responsabilité lañu def nak ñu bi leen ko wax waye ñom dal dañ jël seen responsabilité en toute connaissance de cause ñom bi sant bokk talibé yëpp di leen gërëm wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh barké di sant Cheikh Mouhamadou Fadal mo bo di Serigne Touba di ñaan yàlla fayal lu ko yàlla tax ci barké di ñaan Cheikh Mouhamadou muntaha khalifa général di Mouride Serigne Touba bu yàgg ci lool te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba lépp ma àggal ñu sago te nu fekkee ko te ànd koog moom noonu koy ñaanale njabootu sëriñ Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw dañu ko ñaanal njabootu islam gépp njabootu Sénégal gépp dañu ko ñaanal ñun taalib yi ak fu mën a bokk di tàmbalee sant gi ak ñaan gi nag ci taskati xabaar yi ndax lii ñuy def li ngeen ci jàppee bañ mën ko jot li fu ne ci àdduna si jot di sant turu bokk yi teew yëpp di jéggu lu jëm ne ba dañoo wax dara ñu jeexee ñëw bi yàlla dafa dogal ñu Ndakaaru xam nga mbiri oto rek am lu ñu def lu ci daamar ja ci oto Sëriñ bi ñu yore ndax lépp Sëriñ Tuubaa ko moom oto Sëriñ Tuubaa bi ñu am lu ñu ko doon defarlu mu xaw a yéex na sax waaye dafa doon xaw a yéex a dem bi ñuy génn xam ngeen tey Ndakaaru day samedi ak burdu bi ñu toll ñu bari dem ci dëkk yu tedd yu ci burdu bi ak yooyu tax yoon ñu xaw a na daanaka dañoo ak sa jiwal si ñu ngi jégg li ci yéex a ñëw bi ndax dañu jàpp dañoo fëroon ñëw bale barab bi dalal ñuy teew njëkk fi mujj fi ngir sëriñ Tuubaa bi tax ñu koy woote amuñu lenn lu moom luñ mel mooma luñ am mooma luñ xam mooma yàlla ñu ko yàlla fayal ñu sant mbokk yi fi teew yëpp nag xam naa ne da a baax rek suñu fàllu waaye di jëru ko woon sama mbokk yi fi teew jiitu woon fi mën nañu fi fu dàq ma ko sama doomi sëriñ yi fi teew ak sama mbokk yi sëriñ sëriñ yeeg doomi sëriñ yeeg taalibe yi sëriñ yi ñëpp ñu fi jéem mën nañ ko te bi ma agsee rek sama doom ñoo fekk muy ji def euh, déclaration bi en français defe naa seen Cheikh Fatma la ba Cheikh seen Moussa bu seen Mouhamadou Bachir foofu itam danaa fi danaa fi def observation bu boo xam dama koy ñaan mbokk yëpp rek euh, da ngay dégg bu ñu tudd ñu bëri ci mbokk yi da ngay dégg ne lay wax Mamoun Mbacke Serigne Mamoun Mbacke Fallilou déedéet nañuy wax Mamoun Mbacke moom Serigne Fall waaye ni si ni ma ni Serigne Maam Mbacke bi def naan Falilou. Ah, loolu loolu loolu xaw naa xaw naa coxaate loolu bu ëpp. sëñ Mamoun moom la ah, ñu wax Mamoun moom bu nekk moom sëñ Falilou nag war a ko wax. Serigne Hamza Serigne Hamza moom Serigne Abdou Lahad mais bu ñu wax Serigne Hamza Abdou Lahad loolu moom dama koy ñaan mbokk yi dem ndax sàllalu kilifa day xañ a barke. Eh, dëgg la te bu ñu sañoon ñun ñëpp ñu am barke. kon loolu correction la boo xam ne ñëpp dañ ko yóbbaale di ko di ko di ko di ko laafale ci turu kilifa yi ñu làmb seen turu waajur buñ tudd kilifa ko na bi sàllal waajur la euh, bu loolu jàllee bëgguma leen téye lu yàgg ndax xaw naa gudd li ñu waroon wax nañ ko li ñu waroon jëf jëf nañ ko dañuy sant bi fi teew ñëpp rek di gërëm di sant ci turu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ndax ñun murid li ñuy def lépp génn kilifa ñam muy muy sëñ Touba te sëñ Mountakha mooy sëriñ Touba li ñuy def moom lañ koy defal li tax ñu teew fi nag yéen ñëpp xam ngeen ko juróom ñoo ma cay dem Eh, xam ngeen ne ak ak tooñ la boo xam ne xam ko yi ñëpp te ki tooñ tooñul tooñul murit yi rek conflit yëpp la tooñ tariix yëpp la tooñ donte sax day wax ne am na tariixa bu tooñ boobu tooñ na ko mm-hmm. ndax bi bi muy tuumal ñëpp la tuumal gis ngeen li suñu mën wax ne ne dañuy trafiqué dañuy def blanchiment d'argent dañuy jaay drogue dañuy jaay ay faux médicament lu ne wax na ko bu nekk da ci la bokk kon kooku mooy def contradiction ak boppam parce que fa te ah, ak tooñ nag kooku mooy xam fa muy wax dafa la bokk aw tur waaye bokku fa ndax foofa xam nañ leen kër ga muy wax la ci la bokk ak tarixa ba xam nañ kër ga xam nañ tarixa ba wala rek lañ seqee rek lañ seqee ñoom kër ga muy wax la ci la bokk ak kër gii Touba rek te tàmbali ak Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Niass Cheikh Cheikh ak ñoom ñëpp jàmm rek lañ seq ba ci ñun ñi seen gannaaw sax jabar ga fa nekk dañoo seq ñoom jàmm xale yi fa jaar yi Euh, Cheikh Ahmed Tidiane surtout ñu daan ko wax papa Cheikh nga xam ne effectivement waa kër ga noonu la ñu koy papa Cheikh dañoo jaxasoo na moom muy suñu wëllëri lool imam Hassan doon suñu wëllëri lool rakam yu tedd yee fa nekk di imam Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh suñu wëllëri lool professeur Barham Diop doon suñu wëllëri lool ak ñu ba ak njabootu Cheikh Islam ci boppam am ci ñoo xam daa bokk ñoom di jàng daara ku ñuy wax Quraysh mi ngi fi ku koo xam ne ñibbi na àjjana yàlla ak ñeneen ak ñeneen nag yu bëree bëri laa ci mën a wax mm. dama bëgg wax rek ne dañoo yàgg ñoom ci lépp di jàmm dëgg la noonu lañ mu lekkër yëpp kon ñun tëluñu lu ñuy wax kenn du noona mm. kon nit ki bu fekkee ne moom xamul xamul boppam amut xam-xam yaruwut di tooñ kooka loola def la ko saxal te tooñun ñun murid rek confrère yëpp la tooñ te dañ leen tudd mm-hmm. kon nag kooka kooka kooka la mu def xam na ko eh, eh, te it mën nañ ko faj nous sommes nag des républicains droit bi muy wax ne jàng nañ ko dàquñu ko jàng nañ ko dañ ciy diplômé di ay républicain lañ xam nañ droit xam nañ état fajaluñ suñu wax ne ci exemple lu may comparé du bokkul sax ndax ñun dañuy dañuy am dañuy euh, sécurité mais chef d'état bu daan romb suñu nga tëb saaga ko mbaa nga yóbbu jaas jëm ko sécurité bi ñu fa nekaan ko monsieur le président question doit faire dañ ko posé boo question dañuy def la ñuy def rek sëñ Muntaxa du fi nekk di sëñ Touba ñu fi di naan sëñ bi la ñu war def ci saaga sëriñ wala ci wax lu dul sëriñ du la ko wax sëriñ Muntaxa di wax mukk sa saagal jiw wala wax jàmm na ko fa man chatamani awlama fa hablahu ma saaga moom sëñ Touba ko bind ko sax ku ma saaga mbaa nga ñaan ci man jot yàlla yàlla yàlla na ko yàlla sax te jubale aw xelam yégal ko bu def jégal ñëpp ñun nag am na loo xam bi ñu ko jégalee mën ko faj danañ ko faj koy ko faj danañ ko faj tayit agul di fenn fu ñu waxe kenn bàyyi nañ la yàlla mhm. du activité individuelle du groupe saa boo ñu gis rek jekk nañ foo ñu fekk rek ñu jekk nañ barke borom touba ci ma taxal yow ku ñeme na ñëw jekk nañ billahi te ñi mu wër ñëpp foofu ñu àgg mhm. bëggu ñu àgg foofu ci réew mi nga xam réew jàmm la mhm. ñoo ko islam ni mu jàngal mooy man kaanu yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut sallallahu alayhi wasallam ko gëm yàlla gëm bis bu si dekk bi da ngay wax baax da nga nopp سرينتو عليه وحنا يوم مريد وار مريد نير الخير وفعل الخير وقول الخير لما يين أو يو يوخو يو يجف يو لأن الله وحده لولا بكوت لأن الله ما إسلام لولا ما يدينه كوت تاريخ يب كلن يجعله إسلام يب كلن يجعله قولوا للناس حسنا لا أفراد وح كن كوك كي كي وح وح دينه مسوا هني الكونتكس ما تفهمه دفعه لي تقول نجوك وين دفعك مجدوك وح نيا يو مجدوك كونتكس دفعه يه وين تفتح تفتح مجدوك waaye waaye tax mu profité ci nag wax la mu war a wax bind bind la la bëgg a bind kooku nag mooy ak yabaate la ak tooñat kenn defloo mu indi nag tuuma mu indi nag tuuma ak sikki sàkka ndax nit ñi waaw waaw nit ñi dañuy wax ne wala fi dañaan wax ne ku ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy ji ñu ndëmb ñu fekk la ngay sooño yére yére liir yaa tooñ si bopp ñii tóor a toog ci réew mi léegi jàmm rek li sax ñoom dañu toog ñoom dara le premier ministre Ousmane Ousmane Sonko ba ma koy recevoir sama kër fii Touba ñu bari ñu mën fa recevoir maa ngi ak photo yeeg vidéo yeeg yëpp mi ngi yëpp ñu politique suñu parti politique mooy Alxuraan ak suñu Touba amuñu parti politique amuñu tendance bokk kenn seq ñu kenn dara ñëpp jàmm lañu ñoom waaye nag boo jëlee ñu dooleel ko wuuf ko muy toj ay jàmm nga noppi ca danañ si sàkk ci te ñoom dañu leen tuumaaloon ne ay salafiste lañ

bu ci opposé du génn dañ la ko delloo ko xam nañu administration ndax jaar nañ xam nañ ni muy dox. du lu ñuy jàngal kon nag dañuy dañuy te te it koo xam ne yow sax tuumaal ñëpp lenn la ñetti ñu wax nga ne bo borom ñaari tur yi la ñun xam ñu li borom ñaari moom benn lañ ci xam wallaahi waaw Maamun Mbàkke sëñ Fallou si la yar na waaye xamuñu juróom ñaari tur ñetti tur moom xañ na moom mi ko moo ko xam am agenda xamuñu luy ñun amuñu agenda agenda agenda suñu agenda mooy lislaam hmm. moom mi xam agenda bi ko jur xam ne da koo xam ba bokk wala ñaari tur ñu xamuñu ñaari tur benn tur lañu xam ñetteel boobu mooy day wax ne ay franc-maçon xamuñu xamuñu luy franc xañ na moom da ko xam ba bokk jamono mu ci tuumal nit ñi te comme tuumal loolu lay tuumal wax nañ ko fi sax ba muy tudd benn chef d'état boo xam ne kilifa réew la réew muy xaritu Sénégal bu koy tudd waxuma ko tudd ndax xam ngeen ko tuumal na ko tuumal bàyyam loolu ak ray mënu ko wees tey nag wax nañ boo wax ne sax diplôme yi wax ne am na ko sax amu ko loolu suñu lépp ci bu ko neexee ma am période diplôme boobu moo xam moom la concerné ay diplôme am ñu soxla ndax lu am ci diplôme rek ñi ngi sama gannaaw am nañu ko ëppale fuuf te te doxewuñ joxewuñ kon nag li ñuy ñaan réew mi di ko ñaan mbokk ñu dal danañ ànd ak dal ay républicain lañ xam nañ li xew dàq leen ko jàng gën leen koo xam waaye dañoo am dañoo am kilifa surtout am na loo xam bi ñu tàggu suñu kilifa rek ñoo koy fayal suñu bopp ñàkk ñu fay ragaluñu te xam nañ réew mi dañu dañu lu neex na kon un TTC ku ma tudde ngeen baal ma si li ma ko tudde tur ñu ko tudde sax mérité wu ko limu ba yi ba dañ koy wax am am soxla nañ koy wax dañ koy wax dañ koy wax cumbur puróon kuti cumbur puróon kuti la waaw bu doon mbaam sax mbaam day am njëriñ mbaam day am ndax mbaam ko sëf mbaam mën ko takk sare mbaam mën ko bay mais cumbur amul waaw dugal lekk ak jënd lekk rek la liggéey puróon nañ ko jaay boo da dépassé xel de ko gànnaar jaay ko waaw waaw def ko gànnaar gi boo dépassé woon jaay ko te te it te it kuti ak nu la ci cum euh, euh, euh, waaw waaw waaw cumbur la ndax ndax cumbur mënta sës mënta jaay mënta mënta bay parce que puróñ as puróñ la si puróñ da koy jaay amul njëriñ mais puróñ amul njëriñ parce wax ay ay ay bëtam baaxut aw aw laa ma ñu leer mënul dara mënta sàmm gële mënta sàmm mënta sàmm ay xar ba amul koy def mu lay gardeel mu lay mbaa mu lay am na fidélité mais as kuti moom amul njëriñ dugal lekk ak ak génn lekk lay jëriñ te mën nañoo wér si li ñu wax mën nañ ko wees ndax xam nañ xew ci réew mi lañ ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp nag bëgg ñu gën a dugal ndax ci réew mi lañ dëkk dañoo xam ne bu leen jàpp ne noppi buri dañoo ragal mbaa dañoo xamut mbaa dañoo xamut li xam di ngeen jàng lañ jàng daara yi ngeen jàng lañ jàng dugg lañ daara yoo xam ne ngeen kii wax na nga xam looy wax te lu ci lañ mën a saafara fu fay dëkk xam nañ ko fay dugg xam nañ ay républicain lañ tam nag xam nañ li république mais ñu ngi art nag kilifa rawatina ñaari kilifa gi xam ñoo jiitu réew mi ñu réagir ci mbir bi parce dañ ko cautionné ki nit boo ko faree jox ko doore muy agir ca baat ba nga noppi ca day mel ndax ñu wut def lu raccord gis nañ ko ci démb ñeneen ñaar ñoo xam dañ leen di xeex ci décret lañ jël te nekkuñu fi ay institution lañ jiite ñu jël décret daq dàqale te kii li mu jiite du institution ab direction rek lay rek direction bu ñu bu yàgg rek décret ko fal mën na ko mën na ko dégommé en ah, n'importe quel si suba rek maa ngi dégg ci rajo bi génn kilifa di wax dama ko tudd mu ne am na gerte xale bu ko defoon bu ci fi joxoon benn institution bu mu waxee lu ñëw ci kilifa yi ak président bi fi nekkoon te saas lañ ko wàcce moom nee na ki loolu wax ci rajo bi nee na kilifa googu dafa ne ak wàcceem ci rajo bi la ko dégg di mu sax courtoisie daan ko kaay dañ lay seet ak dañ ko daal di jël dëkk da ko ci saas te li kii wax gën a garaaw la mu waxoon kii li wax moo gën a gaaw la kooku waxoon te kooku dañ ko ca saasi kon nag kii autorité buñ ci noppi nañ ci réagir sinon rek am fu ñu leen dëkkale te bu ñu amee fu ñu leen dëkkale ci lañ ko jël da leen ko cher ñu polémique ñu contre ñu ci adduñu kaa adduñu kenn suñu ngi sant ñëpp di ñëpp di balu ñëpp ak aaxiru yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu kilifa yi fi teew di jiital sëriñ Abdou Mbacke bi Cheikh Amadou Fadal ak sëriñ Serif di nuyu sëriñ Cheikh Fatma mi nga xam ne moo initié jotaay bu am solo bi di loo xam ne ñëpp la war tey lu am solo la day faral kon su fekkee ne tànn na lu mat ñaar fukki ak juróom-ñett sollicité ci mbooloo yi nga xam ne xam ngeen ne seen liggéey weesuwut taxawal diine ak wane njàngaleem sëriñ bi te loolu kenn jiituwu ci daaira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk jumaa ji te biir wax yu ñaaw yooyu nga xam ne mi ngi koy wax moom Omar Diagne moomu xam na li muy def parce que day dàkk yi nga xam ne moo gën a symboliser ci yoon xam ne ne jumaa ji bokk na ci yi nga xam ne murid dañ ko def ci seen xol moo tax mu wax ci lu ñaaw kon daayira Muxaddamatul Xidma mu ngi ci biir mbooloo moomu ànd ak kuréel yi muy daayira Al Wafa Daarul Muxti ngeen xam leen ñoom it ci ci saare njàngaleem sëriñ bi académie Minan bu Daarul Minan aayam muy association des écrivains mouridiens muy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy bind ci langu nasaraan wala langu bu mën a doon ci fànn yi ñoo ñëpp ñu ci biir mbooloo mi nga xam ne ñooy signé lii nga xam ne moom lañ fas yéenee jébbal njiitum réew dañuy jàpp ne nag xëy na ki nga xam ne moo jiite réew mi bi muy fal kii nga xam ne xëy na xam nañ ne nit fitna la wala waaw euh, li ki doon tamit waa musée bi nga xam ne ñooy saytu ak sàmm ndono yi nga xam ne sëriñ bi bàyyi na ko fi te sëriñ sëriñ mi jiite ko ñoom it dugg nañ ci biir mbooloo kon li sëriñ Cheikh Fall ma wax rek ñun lañuy ñuy dañuy jàpp ne bi mu koy fal xëy na trompé wu na ci ndax ku mel nii nga xam ne day yeefin na ci réew kenn du ko dugal ci biir ab palais kon loolu moom responsabilité yi warees na ko cay jël. beneen bi nag diggante Touba wala wala yoonu murit jàpp naa ne état bu ko am doo jéem a xool lu luy karajal seen diggante ndax fii lañ gis fekkee liiru luñ ko archive bi sax mi ngi pale fii lañ gis état senegal di def conseil des ministres fii ci région Diourbel fii la dax képp gouvernement bépp Touba leen dala kon suñ dee réviser lu mel noonu xanaa dañoo fàttaliku ci jamono coloniale ba léegi Serigne Touba bi France jaaxle moo leen dimbale Cheikh Mouhamadul Mountakha mi wala Serigne Sidi Mokhtar mën nga ko cee tàmbalee moom lañ gis mu génne un milliard def ko ci Covid te war waru état la kan moo doon jaale gi ak massawu ñi nga xam ne dañoo faatu ci xeex bu metti bii nga xam ne ci la Sénégal yi jële naqar bi fal état bi tey suñu Cheikh Mouhamadul Mountakha mbënd mi ak réew yi nga xam ne ñoo wër senegal ku ci am jafe-jafe kon ku mel noonu nga xam ne kenn deful leen dara suñu borom rek la ñu wéeru ci lañu wàkkiru sëriñ Tuubaa kenn deful ko dara kon ku mel noonu kenn wërta fat koo xam ne day wax lu jëm ci di ko karajal kon nag loolu jàpp naa ne danañ ci jël seeni matuwaay kon kuréel yi nga xam ne daal dañuy lëkkaloo di liggéeyal sëriñ bi ñu ngi ànd mu baax a baax a baax di ko xeex di ko dénoncer di ci ànd yi nag saa su nekk mane ne saa woo suñu wootee wala saa lu xew kurel yi ñi ngi ci biir ngir and ko ak serigne Cheikh fane ak ñi nga xamne ñom wahna lañ ko and ndax serigne Touba mom deug la waxna ci fawsa ne wa kullu man satamani awlama fa hawlahu tawbata Gata gàttandu na gaaw di yërëm ki nga xamne da ko ngagn wala mu mu mu di wax lu bon di ñaanal ak mucc waye fa kullu man asaa sannahu biya faliya qalbuhu ya rabbiya ñu Pourtant, les familles religieuses ont contribué de manière décisive à la formation d'une nation sénégalaise plurielle, mais unie autour de valeurs religieuses et sociétales qui structure un vivre ensemble exemplaire à bien des égards. Leurs œuvres tout au long de l'histoire ont marqué les hommes, les espaces et les institutions sociales et politiques et expliquent le fait que la très grande majorité des Sénégalais se reconnaissent en elles. Sans être exhaustif, rappelons ici quelques propos désobligeants et haineux du sieur Omar Gaye. Je le cite. Il nous faut une dictature sérieuse et citoyenne et patriote. Ceux qui matérialiseront cette dictature devront s'en ficher de tout, ne devront croire ni suivre personne, y compris ce qu'on appelle chef religieux. Ils ne devront pas tenir compte d'eux et de leur avis absolument en rien. Dans une autre déclaration filmée, il affirme Khadim Rasoul moi, je ne le mettrai pas. Il n'est pas dans mon cœur. En plus, Ali Murasol est loin d'être une créature parmi les meilleures. Fin de citation. C'est Cheikh Omar Gagne qui parle. C'est Omar Diagne qui parle. Dans une autre sortie, Omar Diagne accuse quasiment tous les chefs religieux de blanchiment d'argent sale, de trafic d'armes, de faux médicaments, etc. Sans jamais apporter la moindre preuve. Ces trois exemples sont loin d'être les seuls propos outrageants de Omar Diaye. Comment un personnage aussi clivant, aussi extrémiste, dans sa haine ouverte contre les chefs religieux sans distinction et particulièrement contre les mourides et leurs guides, a-t-il pu être nommé à un quelconque poste dans l'administration sénégalaise de surcroît à une position aussi stratégique que celle de ministre conseiller et directeur des moyens généraux à la présidence de la République. Nous n'osons pas croire qu'il a été promis par les nouvelles hautes autorités du Sénégal en toute connaissance de son parcours, de son profil et de ses positions et convictions antérieures. Quelqu'un qui prône si ouvertement l'exclusion et le manque de respect envers toute une communauté du pays, cette communauté fût ethnique, séeréer Biola Pura ou religieuse tidiane mouride laïennes etc ou chrétienne ne devrait occuper aucun poste dans l'État du Sénégal car de fait il a déjà annoncé son hostilité envers de larges groupes de citoyens de la société sénégalaise qu'il est pourtant censé servir et dont il doit veiller aux intérêts de manière équitable. Sa posture et disqualifiante. C'est une position de principe que tous ceux qui aiment le Sénégal, sa stabilité, sa cohésion et la préservation de son vivre ensemble doivent avoir. La thèse la plus vraisemblable est que Omar Diagne a, été, a aussi trompé les plus hautes autorités qui l'ont nommé. L'homme est un beau parleur, pompeux et extravagant ou bien ces autorités ignoraient ces nombreuses déclarations diffamatoires, outrageantes et extrémistes avant sa nomination. L'homme est même un danger pour la diplomatie sénégalaise, car ses propos extrêmement irrévérencieux envers le roi du Maroc, un pays considéré comme l'un des meilleurs amis du Sénégal, constitue un risque de tension dans les relations entre nos deux pays si son cas n'est pas géré, bien géré. Le président de la République son Premier ministre ainsi que tout le gouvernement bénéficie d'un préjugé favorable auprès du Khalif général, Cheikh Mohamed Muntaka, auprès de la grande majorité des leaders de la ville sainte, mais aussi de la part des populations qui placent beaucoup d'espoir en eux. Ce préjugé favorable est aussi dû sans doute à la posture respectueuse des autorités vis-à-vis -vis du Khalif au changement de paradigme dans les relations entre l'État et les familles religieuses, plus tourné vers l'intérêt général des populations et du pays que vers le maintien de prébandes accordées à une petite minorité d'affairistes. Il serait malheureux que cet élan d'un nouveau partenariat gagnant-gagnant entre l'État et les familles religieuses, allant dans le sens de l'intérêt général et du développement endogène de notre pays, soit saboté et sabordé par un personnage obscur qui trompe tout son monde et dont l'agenda caché n'est peut-être pas le même que celui des nouveaux dirigeants. On signait la première liste. Il y a plusieurs listes de 28 signataires. La première liste seulement, je vais donner les noms. Serigne Mohamed Mamoun Mbake Falilou, Serigne Salou Mbake Murtada, Serigne Hamza Mbake Abdul Ahad, Serigne Samad Mbacke Chouaib Serigne Aliou Mbacke Falil Serigne Cheikh Mbacke Lagan Abdoul Ahad Serigne cheikh Mbacke Falil Daire Muxadimatul Khidma de la grande mosquée de Touba Al Wafa Darou Mouhty académie minan des sciences islamiques des sciences islamiques association des écrivains mourides Serigne Mame Thierno fils aîné de Serigne Mountakha Serigne Cheikh Mbacke abdul Aziz Serigne Cheikh Aziz docteur Khadim Lo imam de la grande mosquée Massalikul jinan sëriñ ahmadou mbàkke moustapha falilu sëriñ cheikh mbàkke moustapha falilu sëriñ basiru mbàkke ibnu sëriñ muntaxa sëriñ ousmane mbàkke ibnu sëriñ cheikh khady sëriñ moustapha fall ibnu sëriñ modou amine fall soxna maam Bousso mbàkke bintu alhaji baara falilu sëriñ moustapha jaxate xaadimul xadim sëriñ saaliwu mbàkke moustapha bachir sëriñ alhaji ka soxna aminta lo italie sëriñ ababacar mbuub ànd sàmm jikko yi maam cheikh mbàkke maam cheikh ndiaye ibnu serigne Njaay Gede serigne modou Xabbaan Mbàkke Kantu Rahma Somone serigne Cheikh Fatma Cheikh Fatma Mbàkke jërë ngeen jëf antañan waaye sëriñ serigne bashir Mbàkke mom Cheikh Mamadou muntaha serigne mamour Mbàkke mom serigne bashir mom Cheikh Mamadou Fadal ak djumbur matutum mbaam as bu rëy mu ne su ko jay serigne Modou Mamoun moom Cheikh Mamadou Fadal ñi ngi lay sant bu baax baax di la gërëm di santat presse bi yëpp di sant kilifa yi fi teew yëpp lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlaloon tey jii ci samedi ji yemoo ak juróom-ñaari fan ci weeru septembre mu doon tuuma yu ñaaw ak wax ju bon nga xam ne côté bi cumbur bi kuréel bu ndaw bi moo ko doon wax ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat ci beneen jotaay bu kenn fàtte talaata Daaru Muxti incha allah rabbi talaata la Daaru Muxti à partir de 17 koy woote asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu